ñu ngi nii di wax naan ko gor yaay noble ah? ah ndeysaan ah ah ndeysaan kenn moom yéen a koy gis donc fii ci palais de la république son excellence président Macky Sall ñëw na sa bon rek askan wi delluwaat ndeysaan gis ngeen Ahmed Thiou Ahmed Ahmed Thiou bàyyi ndeysaan amee booba ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan maa kii la lu bëgg yéen la ndeysaan sénégalais yi bëgg nañu ndeysaan gars yi kontaan nañu ndeysaan ndeysaan ñëpp bëgg nañu ah wallaay ndeysaan dégg ko ah ñoom ñëpp ñu ngi doon wane seen cofeel ak bëgg bi nu bëgg président Macky Sall foofu la ci buntu palais de la République démb bi discours à la nation bi euh, jeexee Ameth ca la bokkoon donc gis ngeen ñu bëree bëri bëri ñenn ñi aussi ci mbedd yi lañ doon nekk di wane seen cofeel ci président Macky Sall. donc tey sunu invité yi bu fekkee waaw bu jeexagul wala. très bien donc ñu sunu invité yi ñu invité wax nañu leen ko tout à l'heure heure ah coach ñu ngi lay nuyu nag daw naa dinaa ñëw. Ah, dinaa ñëw dinaa ñëw saal fan yi waaw ah, dinaa dellu si waat parce que temps yi damay daw rek voilà euh, dañu koy dañu leen di nuyu bàyyi la ñu nuyoon teg téléspectateurs yi comme ni nu ko waxee ñu nekk ñoo xamee ñu ngi woon ci ginnaaw président Macky Sall doon ko gunge depuis très très longtemps ba kenn ku ci nekk sa tour dañ ko dàkkantele président Macky Sall Kaliphone ñu naan ko Kaliphone bu Macky Sall ah Tampi di ñu naan ko Fatoumata Fouta Tampi bu président Macky Sall nga xamee que plus souvent da leen di dégg ñu wax di réclamer lu bëree bëri bëri loo xamante ni cër la buñ ko war a am euh, jëmale ci euh, président Macky Sall donc nag bu dogal bi daano démb coow li bari na foofu la ci siège bu APR ñoom bokk na ci ñi nga xamante ni ña nga fa woon dinañ waxtaan ak ñoom bàyyi la ñu nuyoon teg téléspectateurs yi d' ñu euh, euh, mën a dugg ca kanam tuuti ci waxtaan bi Kaliphone ñu ngi lay nuyu. waaw aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim mm. donc euh, alhamdulilahi rabil alamin laa yax ginnaaw bi ñu sante yàlla jël si yonentam bu tedd bi mm. maa ngi leen di nuyu Padros di nuyu bi di nuyu waa ITV di nuyu seen ay téléspectateurs ak seen ay internet yi ñu suivre si réseaux sociaux yi. Mhm. donc di am contentement vraiment le fait que ngeen invité ñu si tele bi nga xam ne macha allah ñëpp koy bàyyi xel ci mim mhm. réew. Mhm. Euh, di nuyu seen directeur seen kilifa yi ak seen i ay techniciens. di leen jaajëfal baax di nuyu tamit sama xarit sama sister. di Fatoumata Ndiaye fii tampi mi nga xam ne mu ngi toog sama wet. nuyu naa leen baax. merci Kaliphone gërëm nañu la aussi ci sa disponibilité ba nga ñëw wuyu sunu tey fii ci plateau la ñu koy woowee Fatoumata ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu sant Padre waaye balaa loolu may ñu sant yàlla. Mhm. jublu ci sang-sang yi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. di sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi. Mhm. waaye di sant tamit cenn Cheikh Bachir Tall afa ba moom toxara maa moom. donc yàgg naa ñëw plateau waaye plateau tey bi moom gën a neex. maa ngi nuyu sama euh, sa rose bi nga xam ne dama koy seetaan lu baree bari. waaye tamit ma am mbégte fekk fi sama seexu yàlla mhm. muy Kaliphone diggante Kaliphone Sall ak Fatoumata Ndiaye a Tampi moom ñëpp a xam nañ ko diggante altine ak talaata bés jaaru fa di ñaan yàlla tamit lépp lu ñu fi wax yàlla doon gëneel mhm. lépp loo xamante ne accident wu làmmiñ la yàlla suñu borom musal amaa dañuy jéem a wax xër mooy tax ñuy wax mën nañoo wax ba gaaj nit wala ñu wax ba wax lu ñu war ta wax waaye lépp lu ñu wax rek te loo xam ne neexul doomu aadama ñu ngi sukk di tey jéggalu te xam ne nit a ma leen di delloo kàddu gi rek ba ci kanam jërëjëf Fatoumata ñu ngi lay gërëm ci kàddu yu rafet yooyu nga yëkkati mu xam le ni que plateau bu mu mës a def bii ci gën donc plateau cant la waaye aussi plateau waxtaan euh, yaatal lu bari Kaliphone Euh, démb bi président Macky Sall defee li nga xam ne moom moo di discours à la nation bi ba baat bi jib doon loola bett yow. waaw bu dee dëgg rek. bett na waaw bu dee dëgg rek. parce que sama souhait nekkul woon président Macky Sall ne du présenté wu 2024. waaw parce que ndawam laa bëgg ko lool. Euh, topp si ginnaawam depuis 2009. sunu borom dogal élection am 2012 moom laa àndal votel ko ba mu jël réew mi. élection amaat deux mille dix neuf ma continuer votel ko ba mu jël réew mi. Mhm. ba tey ñu ngi si deux mille vingt trois donc naan lu yàgg dëgg la. donc bu doon sama sago. Mhm. fii mu jëlee Sénégal ci lëndëm. fi mu jëlee Sénégal si coono ba andi ko tey mu nekk Sénégal émergent. Mhm. bu doon sama sago day continuer nii. mais tamit comme ni ñu koy waxee rek. li mu def tamit moo gën lu mu defut. parce que gis nañ ne macha allah président bu am yar la. président bu jàng la. président bu Afrique ba ci àdduna bi yëpp di naw loola. donc bu demee ba jël décision bi gis nga ko lu ñuy wax sax même ay noonam de bu bëgg nañ ci moom mhm. donc dañuy sant suñu borom rek mhm. lu président mag saala def rek décision bi yaakaar naa ñun ñëpp dañuy topp rek ànd ak moom ci loolu mhm. parce que tamit euh, man gis naa ni lu waral décision bi yëpp mooy euh, moom moo gouverné te ci nguuram gis nañ ci ay yeneen nit ñu ngi jéem a jaxase réew mi ba ay fitna ci yeewu ay nit di ci ñàkk seen bakkan ñu ciy lakk ay bus di ci lakk ay alalu jàmbur bu demee ba calculer loolu yëpp mu ne la plupart peut-être moom mooy déranger mieux vaut rek mu teg lay mais bu dee rek liggéey gisuñu ci mim réew ku gën bëgg président Macky Sall réew mi gisuñu ku gën a yelloo jiite it président Macky Sall réew mais xam nga la plupart rek après la Sénégalais di comprendre. Mhm. président Macky Sall bëggoon yóbbu réew mi. d' accord loolu dinañ ci yaatal fii ak ci kanam tuuti. Mhm. Fatoumata bi dogal bi jóge ci. gémminu euh, làmminu président Macky Sall mu xam le ni que du euh, euh, def troisième mandat lu la bett la loolu waaw lu ma bett trop la parce que man maa ngi woon Fuuta depuis mardi. Mhm. parce que sama liggéey bi boo ko sama yaay ndeex baay moo wàjjeeku. massa mhm, waay ma demoon mhm. Fuuta. donc bi ma demee nag ñu ne day wax. démb laa ñibbise man démb laa jóge Fuuta. bi nga yëgee ni def discours à la laa daw ñibbisee donc bi ma ñibbisee sama frère moom du ñu réer mu may woo. ne après day dem permanence ma ne ko dem. dama sonn. mais ma toog ba si yàgg rek ma ne toog waruma damaa war a dem. donc nag ma am mhm. mbetteel. parce que 2012 laa dugg ci président. Mhm. xaw ma ku du président. 2019 la sama sëy tas ndax président. ah oui ah oui 2013 2019 la sama sëy tas ndax président Macky Sall. Mhm. donc ma ànd ak moom nag mu metti woon lool. bi may def Fouta Tampi aussi maa ngi ci biir APR. mosuma transhumé. xaw ma kenn ku du président ku nekk ñoo na ci man. mais teew man dama bëgg président man président rek kay sama président rek laa bëgg ma keneen ku du président. donte nag. bu avant moom am na ko fi jaaroon. Mhm. après moom dina am ku fi ñëw waaye ku nekk bu ko bañal ñaaram. Mhm. ñaar yi bu ko bañal doomu aadama. bu bañal doomu aadama bëgg-bëggaam waaye bu ko bañal pas-pasam te suñu diggante président bëgg la. Mhm. ndax amatuñu dara luñ mën a wax parce que ba fi may wax ak yow nii xol yi dafa tooy. man mënu ma woon nelaw. parce que man dama jàpp seen affaire dafa mel ni ci man comme léeboon ak lippoon parce que njortuñu ko woon. te xaaruñu ko woon te juñuñu ko juñuñu ko parce que boo leen ko. am na ay leaders yu bëri yoo xam ne dem nañ ba seeni région naan euh, région nag Matam di wii au deuxième quinquennat Doudou Ka dem Casamance naan Ziguinchor wii au deuxième quinquennat Tamba wii au deuxième quinquennat mm-hmm. donc mu ñëwaat ñuy jaay carte APR yi mu ñëw def lancement carte APR yi mm-hmm. nangu la wax ba mm-hmm. keroog bi nga xamante ne mooy ñi nga xam ne ñooy maire bi ñu demee di ko ñaan dégg Mame Boye Diao lu muy wax donc on était confiant jàpp nañ ne kii day ñëw tey yoon ma na ko ko mais nag mu waneen da gor la mu wane na gaar mi la mu ware na nit ku am kàddu la ndax kàddoom la sàmm ba fii moo tax kàddoom moo ko teree bañ a dem mënoon na woon a dem mënoon na woon a forcer parce que boo seetloo ñun du ma ne Sénégal sax pays d'Afrique yëpp dëkkuñu daa bëgg nguur ñi fi jot a jaar ñëpp nguur dañoo dem ba fokkati ko seeni loxo mhm. parce que dañuy forcer ne par force dañuy jàll ñu jàll soit ñu jàll wala ñu bañ a jàll mais dañuy foqati nguur seen loxo mais moom xaaru ba ñuy fokkati nguur si loxoom mm. dafa xaar xaaru ba ñu téye loxoom ci ndab li dafa na doy na abana et pourtant fi lañ doon wax ne président Macky Sall zircon bi feeñ gaz bi feeñ pétrole bi feeñ Aliou Sall jaay na ba ñuy laaj suñuy quatre cent mille ñi naan def na ko ni def na ko ni et pourtant ci waxtu jaay lañ toll te pourtant waxtu jaay bi ak fii mbiri feeñee fa la ko président Macky Sall ne ko doñña teg ko fa dem ko ginnaaw xanaa du mooy gor parce que dañu toll foo xamante ni dañ doon promouvoir que ni que euh, c'est un président boo xamante ni dicta dictature la fi bëgg a andi. Mm-hmm. ndax dafa bëgg forcément def li nga xamante ne mooy troisième mandat. ji mm-hmm. euh, jaay doole la fi ñëwee ah euh, bundu xatal nit yi. Mm-hmm. tey est-ce que kiiwul niñ koy xatee contredire voilà ñi nga xamante ni ñoo doon wax loolu yëpp ci moom parce que.